ahousubillahi min asheytaani rajim bismillahi irrahmaani irrahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel mbokki ci bis bi nga xam ne moom lañu nekk ak euh, guddig bi nga xam ne itam muy bisub dem bi nga xam ne moom lañu nekkoon di màggalu Kazu Rajab xam ngeen ne sànq la cérémonie bi doon euh, jeex léegi ci tubaa mu mel ne nag euh, waxtaan wu am solo woo xam ne njabootu Cheikh Amadou Fadal Mbacke nañu ko ak euh, taalibe murit yi seq ko ak jullit ñëpp waaye itam seq ko ak waa réew mi ak waa Afrique mu mel ne kon Abdourahman Lo mooy ki nga xam ne moom moo nu fa toogaloon dañuy dem foofa nag bu ko defee jokkoo ak moom ci ab tënk mu wax nu. na nga xam ne noonu la waxtaan wa demee woon ak euh, lan lañ ca mën a jëlee incha allah Abdou Rahman Lo mi ngi ci jokkoo bi Abdou Rahman ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Bassirou di la delloo nuyoo te di la ziare ci euh, mën la mhm. mm, kon ci jamono jii foofu ci tuubaa euh, sanq la ñu jeexal cérémonie officielle bu màggalu Kazu Rajab édition 2019 bi waxtaan wa lan lañ ci mën a jàpp. waaw ci fàttali tuuti rek lii mooy téeméereelu rajab ak fanweer ak ñeent ndax Cheikh Mamadou Fadal rajab 1306 la feeñ jamono lii mooy rajab 1440 différence bi kon téeméeri rajab ñu amal nag cérémonie officielle bi ñu nga xam ne nii moom mooy tànt bi nga xam ne nii Euh, moom mooy mbaarum Serigne lu nga xam ne ñi xamoon ci fànnul Touba am mbaar moo fi woon ñu tudde woon ko ma Cheikh Mamadou dal ñen ñi nga xam ne ñu ngi ñëwoon Touba bu baax a baax buñ mësaa ñëw Touba fi la ñuy fanaan ñenn ñi nga xam ne doxoon nañ ba sonn bu ñu mësaa ñëw xam nañ ne ak gar la ñu man see dallu kon foofu ci bërëb boobu nag la ñu amalee cérémonie officielle bi ngir wàccaayu li ngir jeexantalu màggalu ko ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer yi nga xam moom mooy weeru Euh, ndayu koor waaye ñu gën koo xam ci këzu rajab ci vingt sept ci weer yi nga xam ne moom mooy weeru rajab sëriñ na fi seen ni nga ko waxee ci midi zéro minute la tàmbali ndax ci la euh, sëriñ Abo Mbacke Baraka ñëw dugg si ci tant bi lu ko jiitu nag midi moins dix ci la ministre Matar Ba moom jiitu sëriñ bi fukki minute rek la ñu rawantee ci seen diggante cérémonie officielle bi am ñu tàmbali mbay peex mi nga xam ne ci yoonu murit miin nañ ko lool fii Euh, tàmbali ay microcentral moom moo joxe microcentral bi ñu daal di nuyoo ñu daal di bàyyi itam genn gone goo xam ne nii itam jàng na alxuraanul karim ci daaray Cheikh Mamadou Badiou mu ubbi bunt bi ngir wane ne rek njabootu Cheikh Mamadou Fadal ñu ngi si ñu séddale nag orateur yi ci nga xam ne moom mooy maire Touba mu dalal gan ñi ndax itam moom autorité la ci dëkk bi buñ ci paree nag ñu jox ki nga xam ne nii euh, moom mooy. Euh, Alaaji Ndiaye programme bi mu waxaat na programme bi nu mu ci tëddee biñ ci paree nañu jox maire bu Touba biñ ci taree sëriñ Modou Mamoun Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal yëkkati na ay kàddu ci kàllaama arab ak itam kàllaamay waraf ndax ñoom liñ ci jubloo rek ngir xamal askan wi ne doomu Cheikh Mamadou Fadal yi moom su fekkee ne jàngitil ñoom def nañ ko ndax sëñ Fallou kenn mënu koo naw ci xam-xam mu wuutu Cheikhul Khadim Cheikh Cheikhul Khadim jàng yar ko jàngal ko ba pare tey itam deful loolu ci ak njabootam kon loolu moom lañ doon dindiwu lay moo tax daaw ñu joxoon kenn mu wax tey ren ñu joxaar kenn déwén naka noonu bañ ci paree nag kii di nga xam ne moom mooy ministre Matar Ba moom moo yëkkati ay kàddu jëmale ko ci yónneen bi ko président de la république yónni biñ ci jógee Serigne Mouhamadou Rafaïl mi nga xam ne nii nag jamono ji moom moo jël yoonu wuutu Serigne Abdoul Fattah Mbacké Falilou ci porte-parole Cheikh Fadal ndax moom la ñuy tàggat officier la guñ ko nag ngir dëggal ne moom la waaye ci yoon wi jël sëñ Abdou Fatah mi ngi waa jël retraite ci li nga xam ne moom mooy porte parole gi sëñ Mouhamadou Rafaïl la ñuy euh, tàggat jamono ji ndànk-ndànk moo tax daaw mu jël ren mu jël sëñ Abdou Fatah jëm mag jëm itam ci li nga xam ne ni moom mooy daal war a bàyyee xale yi ñu liggéey loolu moo waral ñuy tàggat sëñ Mouhamadou Rafaïl moom mu tëj kàddu yi ci kàddu yi am solo al Bachir mm-hmm. Abdourahmane euh, yaakaar naa noonu la orateur yi tëddee waaye ci wàllu contenu waxtaan wi contenu wax ji exactement lan la ñu mën a tënk ci ñi nga xam ne ñoo fa jot jël kàddu euh, yan kàddu ñoo fa gën a marqué wu ak kàddu ya yan la. maire bu Touba moom jëmale na ay kàddoom ci li nga xam ne nii moom mooy màggalu Kazu rajo moom chaque année bilan boppam lay def maire Touba daanaka communication moom jërut bàyyi xel mën nga wax ne sax daanaka presque màggal yëpp rek même discours la fay def mooy sëriñ bi. délégation bi ñu boolee loon yaru nañ li nga xam ne nii yem nañ ci loxo ñu gën ci mbooloo nga ñu tànnal maanaam li nga xam ne santoon nga ñu ko def nañ ko moom laataa gars yi di ko gërëm sax moom mooy gërëm boppam daanaka dalal li nga xam ne moom mooy lim officielu présidence yi nga xam ne ñoom la yebal ci loolu daal euh, mag euh, a Lahad Ka wax nga xam ne daanaka daal discours bi mu tàmm di def saa su ne rek mën nañu wax ne moom la répété waat ci fii nga xam ne moom mooy màggalu ko Cheikh Mouhamadoul Fadal Mbacké biñ ci euh, paree ki nga xam ne mooy Alaaji Njaay moom wax na ci li ñu fas yéenee doxalee programme bi moom itam daanaka da doon fàttali nit ñi rek wax itam ne tey jii am na benn poste de santé ci ndindi boo xam ne nii Cheikh Mouhamadoul Badi moom itam tabax na ko foofu ci ndimbalum ñaari taalibeem waaye taalibe yi soxlawul ku tudd seen tur kon loolu ñoom lu ñuy nëbbu la kon waaye Cheikh Mouhamadoul Badi moom mi nga xam moo ko tabax moom daal defar na ko tey jii lañ koy immigré Serigne Mountakha Mbacké ibnu Cheikh Mamadul Bachir moom moo koy immigré moom tim na dana fa teew moom moo tax tim moo tax ñu wax na rek bu cérémonie bi jeexee rek na ñëpp dem wuti fa ndax jërul lu ñuy xaar moo tax te jamono ji délégation bi bëree bëri ñi ngi daw wuti foofu nga xam ne moom mooy ndindi biñu paree Cheikh Mamadul Bachir ibnu Xaadim euh, ibnu Cheikh Mamadul euh, ibnu Cheikh Abdoul Xaadir Mbacke mi yor kàddu murid yi jël na kàddu ci turu Sëriñ Muntaxa Mbacke ibnu Cheikh Mamadul Bachir moom dul tim ay kàddoom man nañ cee ràññee attaque bi nga xam ne ni ñenn ci tarixa yi ñu ngi koy attaquante muy diggante tijaan yeeg murid yi am na murid yoo xam ne nii ñu ngi attaqué tarixa tijaan am na tijaan yoo xam ne ñu ngi wax na itam ci li nga xam ne nii moom mooy kan mooy Cheikh Mamadou Fadal Mbacke wax na itam ci jàmm ji nga xam ne ni moom moo fi nekk dalal na itam délégation li nga xam ne moom mooy nguur gi ma Matar Ba ñaax ko yu mel noonu daal la Cheikh Mamadou Bachir wax gën a ñu wax nag kan mooy Cheikh Mamadou Fadal ci ni mu doon doxalee ak wàllu googu biñ ci paree euh, sëriñ Moodu Mamoun Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal yëkkati dina ay kàddu moom itam ay kàddoom ci kàllaamay arab ko jëmale wax ak ñun mbokk yi nga xam ne nii ñoom araab lañ dégg te nekk ci même même buñ bëriwul ci tànt bi wax naa ak ñoom ci dellu mat 10 minutes ci kàllaamay arab ginnaaw gi mu tekki ko ci wolof li mu doon wax ci wolof daal mooy ñu xam njëriñul Cheikh Mamadou Fadal njëriñul màggalu Kazu Rajab gan ñi nga xam ne ñëw nañ liñ leen war a man a teertoo ñoom liñ ci jublu daal ci kàddu yooyu kàddu sëñ Maodo Mamoun sax mënoon naa ñàkk ci cérémonie bi waaye liñ ci jublu rek ngir wax ne daal léegi dañoo bëgg a wan askan wi ne at mu jot danañ indi benn doomu Cheikh Mamadou Fadal wax leen na leen daal sëñ Fallou jàng na ay doom yi jàngal na leen même bu fekkee ne am na doom yoo xam ne tombante wu ñu moom duñ ciy jógee itam waaye daal ñi leen ñi yoroon xam nañ ñi njaboot sëñ Fallou lañ def nañ xam-xam boo xam ne nii tey bu sëñ Fallou ñëwoon itam du mën a weer si lu mel nii Modou Mamoun loolu moo fi nekkoon ci ay kàddoom moo tax mu yëkkati kàllaamay arab ngir wan ñëpp ne dégg na arab buñ ca paree itam mu yëkkati ko ci wolof wan ñëpp ni itam li ñëpp naam moom laa naam te ci laay wax ngeen dégg ko biñ ci paree ki ne moom mooy Massar Ba wax na ko moom ci nawet bi jub si la ñaan ñaan ci jàmmi réew mi wax daal ndénkaane président ñu jàppale ko comme niñ defoon at mi euh, def euh, ñaanal ko deuxième mandat bi mu jub ko ndax jàmmi réew mi mooy jàmmi président jàmmi président mooy jàmmi réew mi munoo munoo munoo munoo munoo am jàmm te sa président amu ko waaye sa président itam mënut a ñàkk jàmm nga di ko nga di ko am biñ ci paree nag sëñ Mamadou Rafaïl Mbacké moom mooy yëkkati ay kàddu ci turu ki nga xam ne nii moom mooy euh, Cheikh euh, Abo Mbacké Baraka mi nga xam ne sëñ Mbacké bu solo ko Cheikh Mamadou euh, Fadal tuddee mu nekk ñetteelu xalifa mu ngi yëkkati ay kàddu kàddu yi nag moom njëriñ yu bëree bëri nag Mamadou Rafaïl moom laal na ko ndax macha allah discours am dañ koy teewlu lu bëree bëri mën nañ ci baree bëri wax na ci Touba tey bu tollee tey ba mën a nekk dëkk buñ mën a naw Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moom moo tax ndax Cheikh Mamadou Fadal moo lootu sa dëkk bi ci le 4 avril 1960 xam nga tey le 3 avril kon Cheikh Mamadou Fadal la touché dëkk bi ak léegi bu fekkoon cérémonie officielle bi suba la am kon nañoo mën a wax ne mi ngi ci soixante mi ngi ci mi ci mi ngi ci soixante ans mi mi ngi ci cinquante neuf ans de euh, maanaam anniversaire am Touba bi ñu ko lootu seeg léegi suba moo tee mu am cinquante neuf ans Sëñ Mamadou Fadel lotissé ko ci bisub 4 avril 1960 tey mooy 3 avril 2019 kon suba rek Touba am 59 ans d' anniversaire ci loo xam ne ab immigration la Cheikh Mamadou Fadel immigré ko sëñ Mamadou Rafael fàttali ko wax na Touba tey bu demee ba nga mën a topp ci mbedd di dem Serigne Fallou la ndax moo moo moo moo moo moo lotissé ci 1960 ci dimbalul doomam Cheikh suñu Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak équipe bi nga xam àndaloon. mu wax ne sëñ Fallou moo fi indi courant wax na dëgg ci vers 1963 64 mu wax ne aw yoon bu ko amee Cheikh Mamadou Fadal moo ko fi indi wax na dëgg ndax ci yoon wu njëkk ñëw Touba ci 1953 1957 la muy route nationale numéro 3 Thiès lañ ko jëlee indi ko Touba Bambey su amee tali Touba moo tax Diourbel su amee tali Touba moo tax Mbacke Bawol su amee tali Touba moo tax beneen yoon mu ne sëñ Fallou moo fi indi yoon wu dëgg la ndax Kébémer Touba lañ ci indiwaat ci vers 1960 61 moom itam tey mën nañoo wax ne tey ay ndóoyeen ay ay ay ay sagata ay ay ay ay daaru muxti eh, misrang maam Balla ba ni ñuy ñëwee Touba fu si am aw yoon rek Touba moom moo tax beneen yoon bi mooy 1962 63 muy diggante Daara Jolof ak Touba moom itam ndikul suñu wàllu la fi ñëwee tey li ko dalee Touba ba ba ngay dem Daara Jolof ku fi am aw yoon Cheikh Mamadou dal moom moo tax bi ci des mooy mooy Kaffrine Touba moom itam ñoo ko fi def ci vers 1965 66 yooyu ci ndimbalul Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nga xam ne tey Mbacke Bawol fu amee ñaareelu yoonam maanaam mën a continuer dem Colobane dem Mbar dem Ñibi ba ni ngay demee foofu nga xam ne nii moom mooy eh, Kaffrine tey Touba Cheikh moo tax li nga xam ne moom mooy téléphone Cheikh Mamadou fi indi ñu Sonatel ko ñetti ligne téléphone li nga xam ne nii moom mooy poste de santé bi fi njëkkaa mooy bi nekk Touba jooju nga xam ne nii booba Touba tull gu fii mu toll muy dispensaire bu Touba moom suñu Cheikh Mamadou Fada moo ko xam ne nii la ñuy mën a denc xaalis ba jamono moo ko bind d' accord dëkk bi marché bi fi la ko Cheikh marché Ocass bu demee ba euh, moom itam Cheikh Mamadou moo tax ñaari kaat yi ñu fi njëkk a def muy Touba Daarul Xuddoos ak Touba Mosquée kon tey Touba bu nuroo dara ci luñ tuddee ab dëkk Cheikh Mamadou Fadal moo tax moo tax sax suñ Mamadou Fadal di wax ne loolu bu ñu ko jëlewaatoon Touba Touba day delluwaat fa mu nekkoon muy rek ak tëbtal kon benn la ci discours yi wax bi ci des tim wax na itam ci am solo muy ñaax ñi nga xam ne kilifa yi jiite Touba jamono ji moo xam ci côté administration moo xam ci côté diine ndax wax bi dafa universel mën nañ ko tënkee itam ci noonu nga xam ne noonu la ko waxee mu wax ne Euh, maanaam tey nu euh, misaal ko ci Cheikh Mamadou Fadal mu ne loolu lépp mu lim Cheikh Mamadou Fadal moom moo ko indi tey ci dëkk bi waaye tey suñu demee ba Touba tey man tey ñu man fee indi courant man fee indi ndox man fee def lépp moonte Cheikh Mamadou Fadal de sañcoon na ay dëkk te moonte mën na koo yóbbu foofu ci dëkk yooya waaye Cheikh Mamadou Fadal dafa xamoon ni lii Touba moo ko taxoon a jóg moo tax mu indi loon ko Touba ba ko fi waaye nag loolu itam kilifa yi fi nekk jamono ji war nañ cee jàngate loolu mu ne Cheikh Mamadou Fadal dëkk bi njëkkoon a gënoon a fonk muy ndindi gënoon a fonk ci dëkk yi moonte ndindi googu de 2010 la am courant te moonte bi sëñ Fallou ci li ko dale ci 1957 ba nëgë ni ñu ngi koy jox loo xam ne ni njëriñul Touba la mu koy yemale Touba kon loolu itam kilifa yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax lépp loo xam ne nii itam état bi da koo def mu nekk loo xam ne Touba ko moom nañ ko yemale Touba loolu itam ak leeral la gum ci indi bu ci def itam mu wax ci li nga xam ne nii nag moom moo xew ci réew jullit yi maanaam attaque gi ñuy attaque julli yi di suba ngoon moo xam Mali moo xam ci yeneen réew yi nga xam ne am na loolu itam ki nga xam ne nii moom mooy sëñ Mamadou Rafaayil yëkkati na ci ay kàddu itam wax ne loolu itam lu ñuy naqarlu la ndax wax na ne yonent bi moom moo wax ni képp koo xam ne fépp suuf nekk na fa doon bi fépp suuf nekk na fa lu mat une semaine l'islam dana fa egg te amul benn réew nag bu ñu war a wax ne lii waruñu fee jaamu yàlla war a war nañu ko fee jaamu amul benn réew itam bu ñu war a wax ne wala benn dëkk wala fenn suuf si ci àdduna bu ñu a wax maanaam njàngale bi yonente bi sallallahu taala wa sallam kenn ko faa jàngale kon yooyu daal la naqarlu dajale ko wax ko itam lu ci des itam ñaax na Matar Ba ngir ko ci président di ko xamal ne daal tey sëñ Fallou mi nga xam ne moom moo leen fi dajale ku bari woon yërmande la ci néew doole kon bu fekkee ne mi ngi fi na gën a am yërmande ci néew doole wax na itam ci chef de yor ay service yamaliwu ko fenn kon képp ku yor service waxi sëñ Mamadou Rafael jooju ci nga bokk mooy bi mu waxee ne maanaam tey bari na ñoo xam ne tey am nañ ay jafe-jafe maanaam tey da ngay nga war moo xam daal moo xam moo xam ci yooyu ni mu ko waxee maanaam léeg-léeg da ngay soxla dara soo soo bala bala ngaa xam loola fa nga ciy lijjantee ni ngay sonne soo eggee foofa nag boo demee ñooñu yaa ngi leen di fekk ñuy faspelu yaa ngi leen di fekk ñuy wattabu yaa ngi leen di fekk ñuy jaay affaire ba yow mujj gi da ngay mujj découragé mun a ñooñu joxaat ak ak gëddam ñi nga xam ne ni ñoom ñooy def lu mel noonu kon daal ci yu mel noonu mën nañ koo jàpp ci tu euh, moom Cheikh Mamadou Rafaayil mu nekk itam lu am solo biñ paree rek sëñ Abou Baraka waxam bariwul mooy ñaan ci lu matul sax benn minute ñu daal di jóg duggaat ci biir ministre bi war a dem Ndindi ànd ak sëñ Mountakha mu fekk leen fa jamono jooju nag la ñu noon sonné ci li nga xam ne moom mooy jumaa ji ci tënku cérémonie bi daal El Bachir mën nañ cee jàpp loolu macha allah mu nekk kàddu yu am solo rawatina kàddu gi nga xam ne njabootu sëriñ Falilou Mbacke ñoo ko yëkkati su ma ko waxee nag mooy kàddu gi sëriñ Ahmadou Rafaay Mbacke yëkkati ndax moo wax ci turu njabootu sëriñ Falilou Mbacke gépp Abdourahmane man ak Alioune Badara Diom ñoom ñoo la seq ci waxtaan wi xam naa boo amee question dañ koy jox mu dugal ko waaye euh, ci kàddu sëriñ Rafaay yi itam am na loo xam ne dégg nañu ko ci muy feddliwaat ak taalibe taalibeeg waa kër Serigne Falilou Mbacke gépp ak seenu jaayante ci ron Serigne Abo mu jaayanteeg Cheikh Ahmadou Mountakha Mbacke lu am solo la. waaw loolu moom même bu ko fi waxul woon doon nañ ko ci xaar ndax tey mënuñoo wax yoonu murit benn kàddu. ndax di fi Sëriñ Tuubaa bàyyi ko lañ gënoon a tiit ci yoon yi ndax booba kàngan yi bari na ñu fees dell bari na ñu Sëriñ Tuubaa sol ba ñuy tuuru bari na ndax waaye booba itam ñu ñëpp itam nangu nañoo topp ñi nga xam ne ñoom ñu leen mag ndax tey boobu maam Cerno mi ngi fi fees dell di di di ndaamala ca daaru maam Cheikh Anta mi ngi fi fees dell di borom ngërëm ak dërëm nga xam ne li jafee contrôler moom la amoon ku ku loolu ku ko am loolu ku ko am ku la mën a yilif day jafe dërëm ak ngërëm mu am ko kon kooku mi ngi Cheikh a Dieng nga xam ne tey boo mooy itam sañ-sañ bi mu amoon Cheikh Ibrahima Fall Lamp mi nga xam ne tey ji ku ku waxuk taalibi moom nga wax kon kàngam yooyu sëñ daa Abdourahmane lu ci wàllu alxuraan jàngal leen comme ñooñu tey mën nañu ak ñeneen ak ñeneen tey mënuñu lim ci ay ponkal yoo ñu ngi ci woon ci yoonu murit moonte de sëñ Tuubaa bàyyi koo fii ñoom ñëpp lañ nërëm topp ci ginnaaw Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké ñii ñii jur ko ñii jàngal ko ñii fekke bisu ñi fekke léppam ëpp ko xam-xam ndax lim xam ñoo ko jàngal moo teewul ndigal moom moo taxoon ñu def loolu kon suñ demee ba ci deux mille dix-neuf tey Serigne Mountakha toog mag leen ñun ñëpp ngir Serigne kon war nañoo mën a roy nag mag ñooña gore jàppaat te mag ñooña wax loolu kon même bu ko sëñ Mamadou Rafaayil waxul woon yortoon nañ ne moom daanaka wax la joo xam ne da koy wax rek waaye du moo nekk ci biir xol yi te loolu itam gëm nañ ko bu baax a baax a baax tey nag wax nañ ne ñoom laataa daree xew def nañ ni ko ñëpp defee dem laaj Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké ndigal ndax nee nañ bu ñu ko waxoon ne ko dañoo bëggoon a sa bisu waajur ko moo del soir ñu ñëwoon doon la ko fàttali day mel ne kon ndaw ji ñu ndigal waaye dañuy fàttali waaye dañ na ko daal bis baa ngi noonu loo ci xalaat mu ne leen jëfe neen ko ne ngeen ko doon jëfe danaa ci ànd ak yéen kon dafa loolu itam nekk lu wér principe la ndax mbooloo itam bu ñu toppee ci seen ginnaaw itam jaadu na nag soo amee occasion bu mel nii nga waxaale leen yow kër gi li ñuy dund ba ñoom itam bu ñu demee man koo xam loolu itam lu jaadu la waaye wax ko moom suuraale woon nañ ko bañ ko wax itam nañ ko ndax dañ laa war a topp da ngaa war a toppee te sëñ Mamadou Rafaay bi macha allah amul lenn loo xam ne war na ko discours bi daal impact ndax daanaka ñëpp nangu nañ ne sëñ Mamadou Rafaay jaadu na ci cérémonie yi wala yu mel ni mu koy wax ndax kër gu ne bu amoonum sëñ Mamadou Rafaay rek léegi débordement bi ëpp géré wut tasaare wut nu ñu koy wax ni euh, xatalut yaatulut leen lu ne daal jox na la sa gëdd ba ne mu war te leen lu ne itam amul lu mu ci wax naan sëñ bi na koo waxee nii kon macha allah loolu itam discours bu am solo dugg ci wax muy taalibe yi sori wala ñu nekk ci ay télévision di ko déglu wala ñu nekk ci ay rajo mu leen di xamal ne daal kër gi nii lay doxee loolu moom bu ko waxoon jàpp nañ ko su ko waxul itam jàpp nañ ko ndax gis nañ kër Cheikh Mamadou Fadal mi ngi ci wax wax na itam ci diggante Cheikh Mamadou Fadal ak Cheikh Mamadou Fadal waaye loolu lépp itam rek day wane ne daal daf Sëñ Tuubaa jógee la yëf yi gënoon a metti te mag ñooñu ñëpp dencoon nañ seenu xam-xam denc seenu sañ-sañ topp ci doomu Cheikh doomu ci Cheikh topp ci doomu Cheikhul Xadim doomu Sëñ Tuubaa itam sañ-sañ yi ñu amoon nag deret yi ñu bokk ak famille yi ñu bokk ak yëpp itam neewoon nañ nër topp ci ginnaaw Cheikh Moustapha bi sëñ Fallou nañ ko àdduna yi dox nag di dox di dox ba ci sëñ Moustapha euh, ba ci sëñ nag kon jaadu na ñoom itam nag ñu def loolu ndax rek la ñu doon xalaat yoon wi te sëñ Mamadou Faye noonu la ko waxee loolu euh, doon na lu am solo Abdou Rahman ci ni nga ko waxee ci kàddu Serigne Ahmadou Rafaay Mbacke mi wax kàddu ci turu njabootu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke gépp léegi euh, bala ñuy wéy feneen màggalu Kazu Rajab dimension bi nga xam ne léegi am na ko ci biir dëkk bi ku ne xam na ne démb euh, gis nañu dayo bi nga xam ne moom la màggal gi am rawatina ci wàllu mbooloo dimension boobu de boo ko doon euh, jéem a euh, jéem a maanaam jéem a li si xaar ba xam ana lan moo waral lu ni mel yan tontu ak yan tontu xam naa tontu yu bari lay doon mais yan moo cee gën a fës. waaw sëñ Fallou rek sëñ Fallou rek moo waral dimension bi toll nii mu toll sëñ moom mooy kan itam ndax moom itam dafa am dimension ndax itam tey bis bi ñu seen jamono dafa nekk itam bis boo xam ne dafa bari ay anniversaire ci ci lislaam ndax bis boo xam ne ci la alxuraan seen jam ci la ci la alxuraan seen jamono ndax ci la alxuraan wàcc kon mën nañoo ne ci la alxuraan seen jamono bis boo xam ne ci la aj maaka seen jamono ne ci la julli jamono ndax ci la julli am bis boo xam ne nii ci la euh, joxe asaka yu mën di xew lépp loo xam ne daal yonente bi mi ngi ko doon dox comme mission ci la am boo xam ne ci la ci la yàlla def face à face ak yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nga xam ne tey wax na ko ni lu mu bind yaa ma ko yaa ma leen gënal bis boo xam ne tey yonent yu bëree bëri ah ay yonent yàlla Insa yonent yàlla Moussa yonent yu bëree bëree bëree bëri ci guddi vingt sept ci weeru ndey koor muy guddi vingt sept ci weeru rajab lañu lañu lañ amee njëggal yu mel noonu kon tey bu ci kenn nit feeñee nag de Cheikh Mamadou Fadal dajale yooyu yëpp bokk ak ñooñu même même même bisu anniversaire ah kooku nag vraiment am na nag am na nag lu kenn amul ndax tant tey ji ku feeñ jamono ci bisu 27 rek ne la leer na yaa ngi ñooñu yéen a bokk même anniversaire moom mu feeñ ci jamono kon loolu ak jagleel la ko ko suñ borom jagleel suñ borom nag mooy xool lu ko neex mu def ko ci nit def na ko Cheikh Mamadou Fadal wax naa ko démb rek ne Cheikh Mamadou Fadal am na may goo xam ne tey ji waxuma la dara waaye tey nit bu juddoo sax maanaam booy jàng wax seen kër sëñ Fallou ngay dégg seen waa kër di ko nettali ci lu bëree bëri même bu fekk ne kër gi nga jébbu juddoo sax jébbu luwuñ ci kër sëñ Fallou ci geneen kër lañ jébbalu ci yoonu mu murit waaye teewul itam nag cër boobu da nga leen koy euh, nu nga da ngay nekk ak ñoom bañ xam ne maanaam yow nii itam lii yaa ngi koy amalante ak ñoom kon loolu itam nekk loo xam ne ni Cheikh Mamadou Fadal am na ko kon egg na ci tax tey lépp loo xam ne dañ koy def fan bis dimanche Kazu Rajab tey bu tollee fii ci wàllu dimension jëmm jooju ren muy Cheikh Mamadou Fadal moom itam mu am sensu feeñ jamono ci bis yi nga xam ne nii tey li mu dëppoon ci bis yi mel na lan moo tax nag yàlla tàmm bëccëgu guddi ñaar fukki fan juróom-ñaar ci weeru ndeyu koor def ci yooyu yëpp itam tey tànn itam Cheikh Mamadou Fadal mu feeñ ci jamono loolu moom suñu borom rek moo ko xam kon loolu rek doy na bay rek nga am ko kon tey fekkoon téere bu ñuy takk la ngir bay rek suñu Fallou takk na ko ndax yooyu yëpp tey bu leen lu ne doy na bay rek tey nga bokk yooyu yëpp nag benn bi kon loolu rek doy na mooy jëmm ji kon Cheikh Mamadou Fadal moom moo waral dimension bi toll nii dimension bi itam nag ginnaaw bu tollee nii nag am na ci loxo yu ko jaarale sëñ Modou Moustapha Mbacke Falilou mm, def na ci liggéey bu am solo boo xam tey kenn mënu ko nattale moo ko tasaare may doomi sëñ Fallou yu fit kenn ku ne mu fexe ba nga am ñaari kër ci Touba wala ñetti kër ci tuuba ci bi mu fiy nekk tey def lu baree baree baree baree baree ci njaboot may leen xel nangu na ñoom ay rakkam lañ mu leen di wóof nga xam ne tey bari na ci ay xew-xew yu am yoo xam ne ni sëñ Modou Moustapha Mbacke Falilou da leen daa woo ci ab jataay di leen wax ne ñëw leen ñu xam ne maag yéen ñoo bokk bàyyi ñëw leen ñu xam ne ëppale wu ma leen dara ci ci sëñ Fallou waaye dama leen jéem rek kon yu mel noonu tey ñu jóge ci alaaji histoire ñàkkal fayda woyofu sëñ Mamadou Lamine Bara kenn mënu ta nettali histoire sëñ Bara bu ñàkkal fayda bëgg bu mu bëgg sëñ Fallou kenn mënu ta nettali histoire sëñ Bara ba pare doo wax ni maagalu Kazu Rajab tax na ci taxawaay bu am solo kon moom itam noonu tey bu ñëwee ba sëtu sëñ ah, sëtu si beneen doom sëñ Fallou ñëw di sëñ Aboo taxaw si kon loolu itam muy turandoo yi ndax bàyyi sëñ Fallou rek egg na ci tey ñi ko tuddee doom sax tey tey tey duñu murit yaakaaruñ kon yu mel noonu yëpp nag bu ko dajalee waaye rek li ko sabab dëgg-dëgg daal mooy bis bi nga xam ne suñu borom moo ko tànn fopp lu tolloog ñaar fukki ay xew-xew yu rëy ci ci àdduna bi wala yu xew ci ba mu sosee àdduna ak léegi xewal naan euh, yaakaar naa dimension bu am dañ dikkaat ci ci ci euh, ci xam nga euh, bis bu mel ne Kazu Rajab ak ni mu toll ci jamono ji xëy na kon war na nañoo am ay wàccaay ci at yi ñu jëm ngir waajalal ko wàccaay woo xam ne dina mën a tax màggal yi di ñëw ñu mën ko def ci anam yu mucc ay rawatina sax démb li ñu seetlu muy ci wàllu circulation oto yi dem beeg dikk bi léeg dëkk bi na tàcc dara du bouger donte sax ñi nga xam ne ñooy takk der ñi ngi def seen kéemtalaay kattan ngir mbir mi am li ñu loole kon xëy na ci kanam tuuti yan pexe la ñu mën a nas ngir lu jëm ci wàllu woowu ñu mën ko euh, lijjanti ci daar daar ci at mii bala ñu dem ci at yi nga xam ne moom la ñu dëkk mën waaw Touba rëy na kër Sëriñ Fallu ñuy màggal bu ñu doon màggalee benn bërëb sax comme ni ñuy defee màggalu Touba sax nga ne lépp ci jumaa ji la mais màggalu kër Sëriñ Fallu kenn ku ne ki nga yaakaar ci kër Sëriñ Fallu fa ngay màggale ak comme dëkk kenn ku ne itam ki nga nekk comme dëkk fa màggale comme demee leen rek la mooy organisation ñi nga xam ne ñoom lañu jox ñu yor plan circulation bi ñoom ci seen bopp ñu maîtriser wul Touba benn sàll wala nga wàcc ko ci yoonu suuf yi mu dem fa mu bëgg a dem moo ko loi ñu mais kon bu ñu demee ba tey corniche bi boyko lan la wala nga fekk benn sareet parce que boo xam ne nii ay policiers yi police bàyyi ko mu jàll ba mu ñëw ci yow nga ne ko dëppal kooku balaa tourné balaa jëlaat temps bay def ne wala bay négocier bay wala nga fekk loo xam ne dafa chargé loo xam ne ci kër gi mu jëm a ngi nii mu jàkkaaroon nga ne ko tourné la fan lay wëriwaat balaa tourné bay def nangam bare circulation yooyu loolu moom ci manque de communication bi am ci diggante ñiy toog ci poste yi nga xam ne nii foofu dañuy fatt yoon ak ak xam ne ñoom la ñuy fatt ñoom ñoo ko waral bàyyi xel léeg-léeg ñu gis loo xam ne war nañoo mën a dawal yërmande mu dem gën a leeral circulation mu dem waaye féeg yéen ngi am moom màggal yi moom ñeexuta régler ci wàllu circulation ndax ordre yi ña koy joxe ak ñay joxe ndigal duñ bokk ak ñi koy jëfee ak ñay joxe ndigal yi ñe Abdourahmane xam naa ma bàyyi la Alioune Badara Dioum laaj la laaj bi nga xam ne moom lañ la moom la la bëgg a laaj bu defee après nga indi ko ay leeral Alioune Badara. Euh, oui jërëjëf euh, sëriñ Bassirou Amar euh, jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci Walf Mbacké 89.3 ci gàddu gi Alioune Badara Dioum moo ci fare xam naa Abdourahmane moom moo coono dikkal na ko jamono ji ndax suba ba léegi mi ngi foofu ci Touba dañu toppal cérémonie officielle bi nga xam ne moo tukkee ci màggalu sëriñ Fallou gi doon. marqué bis bi mu gën a see àdduna Abdourahmane euh, ci euh, li may laaj dina jëm ci hôpital bi nga xam ne muy poste de santé bi nga xam ne doon nañ ko inauguré foofu ci Touba tey muy Ndindi euh, sëriñ Mouhamadou Badoy moo ko fa defar moom moomu la moom moomile sànq suñu njaa suñu njaatige ci kër gi Mamadou Makhtar mi ngi wax ne kóol rek borom kër gi la woon muy Sidi Lamine donc boobu poste de santé nan la ko population war a accueillir ci contexte bi nga xam ne nit ñi dinañ soxla lu ni mel ci wàllu wér-gu-yaram. waaw ni ñuy ni ñuy ni ñuy ni ñuy ni ñuy yokkanti foo wala ni ñuy perto yeneen poste de santé yëpp rek wax nga dëgg sax ci biir cérémonie bi ñaanal nañ ci kilifa yi fi bàyyi ko ku mel ne soxna Baali moom soxna Maymunatu Mbàkke sëriñ Baara Mbàkke xalifa eh, soxna Fat Dia Mbàkke sëriñ Cheikh Daaru Rahman xalifa sëriñ Abdoulaye Borom Dër bi ñooñu tam ñaanal nañ ak Sidou Lamine mi nga xam ne wax nañ ne moom ku eh, ba muy gone la amoon kóllëre ak Sidou Lamine loolu itam ci luñ fàtte woon la waaye loolu itam ci cérémonie officielle bi jàll na fi waaye ni nga ko waxee poste de santé bi loolu daal li muy gën a jàngale daal mooy poste de santé bi moom li ñuy teertoo poste de santé yëpp la mooy wér-gu-yaram moom askan wi soxla nañ ko ay poste de santé yu ñuy tabax itam te wér-gu-yaram wàññeekuwul itam bëriwul njëriñ li am solo daal mooy jéem a wàññi wér-gu-yaram bi wala faju bi wàññi garab yi médecins yi nekk ñu am respect kii li nga xam ne moom mooy population bi nit ñi itam gën a xam ne ku feebar da ngaa war a faju yi te soo waree faju ji la ca njëkk laataa ñu lay joxe doom mooy ka ngay tekki mu mën laa dalal mën laa wax ne saw feebar bi maanaam ñàkkalal la ko fayda ba sa xel daal mu man laa faj lool daal mooy li ëpp solo waaye tabaxi poste de santé moom lu baax la surtout koo xam ne nii tey mënoon naa fa boobu xaalisam ndax moo ko liggéey ci ñaqam mënoon na koo def jëndee oto wala mu defee ko leneen waaye mu ne naa ko delluwaat ci askan wi luñ lépp luñ bokk kooku moom lu am solo mooy suñu Mamadou Rafaïl luñ mënuñu lu dul sant ko gërëm ko kon li askan wi moom li ñu koy teertoo mooy mu gis ne feebar nañ war ñoo faju ji gis nañ fu ñu fan a fajoo ñu dem faju ji waaye nag lañuy fajoo daal état bi jàpp ci wàññiwaat jërmande ji faj askan wi ci dimbali leen ci ay garab kay ku waroon a fay junni ñu fexe ba ngay fay juróomi téeméer loolu daal moom bu fexe woon ba moom loolu mooy li nga xam ne moom moo ci ëpp li nga xam ne moom mooy njëriñ liñ ci mën a jàngale daal mooy képp ko am xaalis war ngaa fexee def loo xam ne askan yëpp dañ ci gis seen bopp te sëñ Mouhamadou Rafael def na ko kon jërëjëf lañ koy wax Mbacke Balla te loolu itam lu la Euh, xam naa Abdourahmane fi ñuy daanelee suñu kàddu mooy ci kàddu ba tey ki yoroon kàddu euh, Serigne Fallou tey muy muy Serigne Mouhamadou Rafahi Mbacké euh, ñi ngi ko dégg ci bi muy daaneel ay kàddoom jëmale ci cérémonie officielle bi muy wax Matar Ba mi fi teewaloon nguurug Sénégal di ko fàttali ne yoon la ñoom ñu jàppale askan wi nga xam ne dañuy am ay soxla des fois ci administration bi. te ay jafe-jafe dara di dikkal mu mel ne woote boobu sëriñ bi mi ngi ko def ci jamono ji nga xam ne démb ci fàttali bu ñu déggee njiitu réew mi ci bi muy waat ci ponk bu ñeenteelu ponk bi mu jël comme ni mu war a doxalee réew mi ñu ngi ko dégg mu naan réforme administration day am mënul ñàkk dafa mel ne loolu nekk na ñaari woote yoo xam ne daje na mooy lan ñoom euh, conscient nañ ne cest à yëg nañ ne nit ñi ñu ngi am jafe-jafe ci bu ñu bëggee benn mbir kon ni ko sëriñ Mouhamadou Rafa yi waxee sànq ci ay kàddoom bi muy daaneel. réforme mu la la xaw ma ñu koy waxee daal waaye daal li am solo ba am solo daal mooy Alioune Badara yaag Bachir li am solo mooy nit ñi ci wam ñoom ñoo war a changer seen comportement nit ñi daal fii yëpp changer wuñ comportement du décret du lenn lu ko mën a dindi mais xam nga ne su waay feebar dem ci hôpital ñu war laa faj kan ko fekk su waay nekk ci téléphone di WhatsApp kooku moom su waay kooku moom li ci administration man bëriwut xanaa directeur hôpital bi ci boppam moo waroon a xam ni kii bi la wala ñu génn benn loi ci yëpp di wax ne li ko dale huit heures ba midi koo xam ne xëy nga ci personnel bi amoo droit laal téléphone lu ci téléphone service bi rek nga war a wuyoo xam nga téléphone service kenn mënu cee whatsapp kenn mënu cee ndax bu ñu ko defoon léegi yi fi soo ko deful ñu dàq la wala ñu sanctionné la kon léegi chef de service yi rek ñoo mën a fi soo demee Sonatel naka noonu da dem ci benn service di laaj gis kenn koo man ne ma ngi ca téléphone am whatsapp du la faale du la def na léegi da ngay daw sax da ngay gis sa léegi li gën a garaaw mooy Touba wala ci yenn dëkk yi da ngay gis koy dawal oto ba mu yàgg mu mu yor ci benn loxo bi baar bi benn loxo bi muy WhatsApp wala nga gis ko muy vocal mais loolu da nga koy gis dawalkati sareet yi ku ne kon léegi yooyu nag léegi lan lan léegi nit ku ne nag moom war a am wala ñu am sanction bu dëgër sëñ moomu durafaye daal li ko war ñoom def nañ ko askan wi lañ ñii daal mooy cérémonie officielle ñoom noonu lañ ko centré noonu lañ ko waxee état bi nag tey ñu baal ñu suñ ci waxee dana nuru politique wala ñeneen ñi jàppe ne nangam waaye tey nit président bu ñu la joxee am réew plus de nga xam ne lii lépp ay jafe la woon saafara woo ko waxoo ci nga dem a dem a dem ba juróomi at dese la nga foog ni lii nga yow lii da ko solution moo tax tey gis nga presse bi ñu bëree bëri dañoo wax ne tey nag mi ngi doog a ja mi ngi doog a bàkk nag njàkk maanaam lamb ji moom mi ngi doog a dajeeg vainqueur nag boo xam ne ni moom mooy bëre léegi nag ay waxee kese la yàlla nañu si yàlla bàyyi juróomi at yi dana ko jëfee yàlla na fi waaye waaye daal Sénégal daal système mu am comme ni ko Sonko di waxee mooy administration administration bi nag lu ñu a jubbanti la mooy nag maanaam nit ñi xam ne askan ñoo leen di fay te askan leen di fay lii lañ soxla waaye soxla aw këyit ca mairie ba dem naan la indi indil ñeen fukk ak euh, defal nii ak demal ca kee ak bàyyil ba ngoon ak defal nii ak yooyu dafa mën a ñàkk te loolu te am na fa wala nga dem fekk koo xam ne nii maanaam war a teral wax la o oh, dalaa war a tatagal wax la lum ne mu di gëdd da dem ci film yi mooy takk der yi comme ngay dem di laaj dara kan fa fekk day naq moo lay gën a naqari la gëdd ak def yëf waaye ba ñëw war a xel mu dal nga koo wax ni ko defe ni defe ni di la gëdd kon léegi solution fan lay amee fi mu toll kat loolu attention de ko yomb na comme bi suñu laa di teree tux mi ci Touba li ko ñenn ñu doon wax mooy wax ko moom yomb na waaye jëfi ko nag lu jafe la président na xam ne wax ko yomb na waaye jëfi ko nag lu jafe la ndax nag ay ay ay junniy junniy junniy junniy junniy junniy gradé ñoom ñooy jalgati ci ni leen neexee te ñooñu tey jii ku leen ku bëgg a rëq seen dëgg soo muy dul seen seen rëq yow sa bopp loolu kon nag attention euh, Alioune Badara. Abdourahmane euh, Lo yaakaar naa ne euh, ci tënk d'une manière voilà. résumé euh, ci tënk ci li mën a jàpp daal dikkaat na ak ñun ci lépp loo xam ne moo gënoon a fës ci cérémonie officielle bi doon marqué tey 133e euh, màggal Kazu Rajab jaaxar naan loolu la dégg sax mu wax ko donc mën naa ne euh, lii nag. non màggal gi moom matugul 133 mais anniversaire u Cheikh Mamadou Fadal mooy bi feeñee jamono ak ren. cent quatre vingt cent trente quatrième. cent trente quatrième Kazu Rajab la ci tey. d' accord d' accord 27 Kazu waaw euh, ndax Kazu Rajab 1306 la feeñ jamono Kazu Rajab 1440 ça fait 134 euh, Kazu Rajab la kon ci tey jii waaye nag màggal gi ay ay 60 ans rek lay am wala ay gën ngaa bari daal mi ngi ci waaw 60 ans wala gën ngaa bari daal ay 59 ans la am ndax sëñ Modou Bousso Dieng ci 1971 la tàmbali màggal gi dëgg-dëgg sëñ Fallou màggal na ko lu mat 4 ans wala 5 ans doo bàyyi ko kon mën nañoo wax ne vers 1962 63 la suñu wàllu tàmbali màggal gi moom di def anniversaire am di seetu anniversaire am kon màggal na ko deux trois ans doog cee bàyyi ko ci 68 euh, sëñ Modou Bousso Dieng ci même système boobu lañ ko bàyyi woon 69 70 mais 71 nag la wax nag képp ku yaakaar sëñ Fallou na nga ko fekk Touba ñu fas yéene dundal bis bi na ko sëñ Fallou daa dundale ndax feeñ sëñ Fallou feeñu na ko ci gént di ko wax ne ko wutal ma bis te nga fonk sama bis yi te mu def ko rek kon 71 ak léegi ci lii lañ koy màggalee li nga xam ne moom mooy Touba waaye nag soo boolee bi Sëñ Fallu feeñee jamono ak ren moom 134 euh, li nga xam ne nii mooy ñaar fukki ñaar fukki bëccëg ak juróom-ñaar ci ndeyu koor jërëjëf Abdourahmane yaakaar naa léegi leer na mooy bi seriñ Fallu gënee àdduna ba jëmmi jamonoy tey ji ñuy màggal Kazu Rajab moo mat 134 année muy 134 édition Euh, donc jërëjëf Abdourahmane mën naa ne euh, Serigne Bass man li may tënk ci bile jotaay la xam ne tey moo doon metre fin cest ci la ñu jàpp ne Magalu Kazu Rajab bu atum 2019 jeex na cérémonie officielle bi moo nekk levée séance bi li ci mën a jàpp mooy kaddu yi nga xam ne kilifa yi yëkkati nañ ko kilifa yi nag bu ñu yëkkatee ay kaddu ñun ndongo yi ñoo ko tax a jóg parce que ñoom. ñooy kilifa yi de dañ koo yëkkati ba pare ne ñi ngi ci ba pare di xaar ku leen ci woo gis nga ni sëriñ Mouhamadou Rafaay def ne ñoom ay taalibe lañ ci sëriñ Mountakha Mbacké lu muy digle ñanga nga ca te lu mu woote aussi ñoom nee nañu ñoo ko jiitu pour def ko donc ñu nit en tant que ay taalibe yoo xam ne ñoo nekk ci suufa suuf li ñu war a def mooy euh, jiima bàyyi xel bu baax a baax kilifteef gi nga xam ne euh, suñu kilifa yi ñu ngi koy doxee ñi ngi ko yoree lépp pour anam wi euh, gën a mën a jaar yoon nit ku nekk ci ñun xam li mu war a def li mu war a warloo ak moroom li mu war a warloo ak àddina bi ba ku ci nekk li ngay dund ci àddina bi dinga ko dund ci li mu waree te doo benn jafe-jafe donc nañu gën a jàjjuwaat gën a góorgóorluwaat gën a ñaaxaat suñu bàyyi xel lu baree bari xam ne ay nit lañ dañoo war di def yëfi nit ay kilifa aussi ñun jël nañ jiital leen ci côté fépp muy administration zaahir beeg baatin bi donc nañu fexe ba lépp loo xam ne ñoom ñu ngi ñu koy wax ñu nekk ca nañ ko bëggee ñu defee ko noonu ñi ñu jiite aussi nañu bàyyi xel bu baax baax ñi nga xam ne ñoom la ñu jiite di wane loo xam ne mooy li jaar yoon li ñu war a def ñu def ko ba mu normal sans problème ku ci nekk xam sa bopp xam li la war parce que li sëriñ Mouhamadou Rafaay wax dafa am solo fii Sénégal la ñu nekk ñun ci administration bi wax ci la ñuy liggéey mais ci la ñuy dox des fois ba bëccëg mais gis nañ ne daal li ci li ci li ci bëñ bi yàng bëri na trop bëri na fooy dem wala bëri na fooy nekk da ngay xam ne ci nañ ko waxee na noonu la ñu war a defee demeewul noonu des fois nga bëgg benn affaire kon ni ñu ko waxee Abdourahmane mi ngi koy mentionné benn këyit bu yër par exemple extrait de naissance 200 francs la vignette bi euh, timbre bi des nga bëgg ko loolu du ma wax ne da ngay dem rek ñu defaral la comme si waa ji moom yoroo yaa fa bàyyi mais au fekk service accueil bu baax bu la dala dara ñu teg la ci li nga war a def pour am sa la heure ne la demal exemple bëgg nga ko léegi mais demal ba ngoon nga ñëw ñu jox la ko mu war a demee noonu mais du demee noonu li ñuy nemmeeku mooy euh, da bëgg benn mbir moo xam ne par exemple dangay def dëkk dëkk pour ñëw jël jël si ko mais boo ñëwee déplacement yi nga ciy fournir wala énergie bi yëpp jàpp ne moom nga soxla ki ngay fekk si moom du ko yëg sax moom il s'en fout mi ngi ci lu ko neex donc loolu mën nañ cee bàyyi war nañ cee mën a bàyyiwaat xel bu baax a baax sëriñ Bass yaakaar naa ne foofu la woo lay tënkee kàddu gi mm. incha allah jaajëfal ñëpp ñi xam ne ñu ngi leen déglu ci euh, suba gi ba léegi fii ci Walfadjri Mbàkke wala Touba Mbàkke wala région de Diourbel bi yëpp parce que fii ba Diourbel ñi ñuy déglu mm. euh, Serigne Bassirou Omar jërëjëf Alioune Badara Dioum Abdourahmane loo kon ñu tëj ak yow léegi fi ñu tëjee ak yow mooy euh, liggéey bu nekk bu yembee dana laaj ab bilan boñ doon defal bilan màggal Kazu Rajab 2019 ban bilan nga ñuy defal yow waaw bilan biñ bilan bu rafet lañ mën a def ndax euh, li nga xam ne moom mooy démb maam suñu tànk guddul waaye jot ñoo dem xaw a takku ci euh, kër doomu Cheikh Mamadou Fadali ci li nga xam ne nii suñu tànk may nañ ko ak suñu jot waaye daal lañ fa gis mooy benn la tànt ngir sëñ Fallou gan ñi fa ñëw itam ñu nga doon joxe addiya ngir sëriñ Fallou kon loolu seetlu nañ ko muy dëkk bépp itam néew lool nga jaar ci am mbedd te gisoo ñu tàntal fa feeñu jamono Cheikh Mamadou Fadal Mbacké ci côté bernde itam macha allah la ñuy wax ndax itam kër goo dugg itam ci yoonu murid niñ ko baaxoo di defee moo xam ginaar la moo xam xar nag ba ci ba ci yeneen rab yi nga xam ne dafa xaw a jafe sax bari na ci kër yoo xam ne góorgóorlu nañ ba tër ko ngir jëm Cheikh Mamadou Fadal xeetu farij ñi itam mën nañoo wax ne ci nga xam ne dañ koy lakk dem jëm ci xeetu farij ñi itam façon mat leen bu ne wala beñe bu ne xam naa ñu sant Touré ñu baal ma waaye daanaka mën nga waxee itam tasaaroo na ci li nga xam ne moom mooy berni yi nga xam ne ndox mu tàng lañ koy def tam sax suukar itam moo xam meew la café la dute la wala yeneen yi nga xam ne noonu lay bindoo itam yooyu itam mën nañoo wax ne daal moom itam démb daj nañ dara li nga xam ne moom mooy ah, xew yi xeetu yi nga xam moom day tax suukar te sedd muy lu mel ne xeetu boisson yi daanaka moom euh, màggal rek ci màggal yi rek ngay xamee turu boisson yu bees sax démb man gis naa kanet yoo xam ne daanaka sax euh, Bachir Amar la tudd boisson nga xam ne daanaka daal lu ne gis nga ko kon dañuy mel ne moom daanaka xeet yi nga xam ne moom moo am ndax dem naa ba gis kastu rajo poisson euh, démb gis naa ay jus yoo xam ne jus yu kastu rajo lañ ci nañ ma baal ci mais dañuy wax na rek ne maanaam tey ci màggal yi ngay gis xeetu jus yoo xam ne noonu lay gis xeetu attaay yi itam naka noonu naka noonu kon côté berne loolu moom macha allah ñoo nickel amul kenn tey boo hmm, euh, xam ne Abdourahmane màggalu Kazu Rajab yëkkati na la démb te añoo kon côté berne moom macha allah cent pour cent mën nañoo wax ne am nañ ko ñu baal ñu sax ndax te moom profil nee na cent pour cent yongu ndax yàlla mi bind sax difu ko waaye daal en tout cas li am solo ci côté bernde moom noonu la ci côté ci ci waxtaani sëñ Fallou moom jot naa ci loolu quatre-vingt-quinze pour cent am na ndax amul benn tànt booy romb démb te néew ñu la sëñ Fallou moo def bii wala xamaatoo ci sëñ Fallou lu bees wala dara barabam bi nga xam ne fi ko denc tim démb sëñ Fallou yëgaan na ne mbooloo ñu koy gën a bëgg ba tey kon ci côté organisation turandoo Cheikh Mamadou Fadal yi gàcce ngaalaama lañ leen di wax ndax ñoom itam ci la ko dalee ci benn fanu ndeyu koor ba ci ñaar fukki fan yeeg juróom-ñaar amul bis bu ñu jëgleelul kenn ci moom Cheikh Mamadou Fadal Mbacke dégg nga bu baax a baax si moom toroxaay sax wax na ko na même chef de quartier yi sax maanaam tey ñi nga xam ne def na tey xoolal yeneen tariixa yi tey amul fay ci jiw yeneen fii sax mbay bi wax na ko ne am na ñaari nit ñoo xam ne nii ñu ngi jógee suma juumul Gabon tudd euh, na seen tur te mënul woon a tudd sax seen tur ndax ni ñu tuddee ay François Cang xawma nan waaye mujj na sax ba mbay ba bi ñu koy wax ne sëñ Fallou daal moo yaatu kon ku ne ko ñëwal kon ci côté li nga xam ne moom mooy bilan bi moom macha allah lañ man a wax li nga xam ne xanaa daal bu fekkee ne am na ay rëq-rëq du du du mën a ñàkk loolu moom wax nañ ko yoonu murid moo bindoo noonu ci fi niñ koy waxee waaye daal li am solo mooy tey daal li nga xam ne moom mooy tënk bu mag bi mën nañu wax ne ëpp solo daal maanaam am na ci des nag ay yenn la ci ay ay ay organisation ay réglage yu mel ne comme nu ñu ko waxee démb li ko bas waxee mooy circulation bu polef ba loolu moom lu ñuy defaraat la ñi nga xam dañ leen di jox ordre moom ordre rek la ñuy mayee kon ñi joxee ordre nag ñoo war a xoolaat circulation bi ñu koy defee li des itam mooy lu mel ne euh, bërëb bi euh, muy bërëbu ziyaare yi tam yaatu naa ne kenn jaaxlewut xanaa daal li am solo mooy yenn tur yi yenn laajte yi mooy du ñàkk ñu réer ak yooyu jamono jii nag dafa xaw a tàng lool ci Touba na ci démb ci gan ñi nga xam ne daanaka ñu Touba ak tàngooram ni muy doxe ndax ñi nga xam dañoo dëkk côté Thiès dëkk côté Dakar dëkk Ndar jëm yooyu bu ñëwee fii tàngoor dana feeñ mais ci côté organisation màggal daal macha allah loo soxla am na kuréel ko boo xam ne nii démb seen décision mat na wala seen seen seen seen seen seen dispon seen disponible saabul euh, mate na saa boo leen soxlaa rek fëkk euh, leen ñu ñu ñu ñu ñu ñu wuy si la loolu itam day wane na daal dañ ci njaboot gi lépp organisé woon nañ ko euh, li nga xam ne moom mooy après bi itam bàyyi nañ leen xel ndax itam li nga xam ne moom mooy màggalu sëñ Fallou ci dimension yi nga xam ne nii mooy màggal yi jëm kanam ci la bokk wala juróomi màggal yi nga xam ne moo gën a rëy ci yoonu murit yi booy lim màggalu Kazu Rajab da nga ko ci boole kon dimension sëñ Fallou moom la màggal gi woote dimension sëñ Fallou moom la màggal gi wane tewen itam ñi nga xam ne dañoo tolloon ci ren di jàng wax di xam kan mooy sëñ Fallou déwén dañuy gën a intégré wu ngir xam sëñ Fallou kon ñi nga xam ne dañoo juddu ren itam fii ak déwén ñoom daañu tàmbalee dégg sëñ Fallou kon màggal gi dimension bi day gën a gëm kanam kon fii ak nit a ngi juddu rek màggal sëñ Fallou di gën yokk te loolu itam lu am solo la kon li nga xam ne moom mooy organisation bi daal bu ñu mënta wax impact itam mën nañoo wax ne daal jafe-jafe yi bëriwut ay tuut tuut la tuut tuut am la te loolu itam mënta ñàkk ci xew-xew ndax 100 pour cent nag yàlla ci boppam defu ko kon nit mënu koo am jërëjëf Abdou Rahman kon xam naa ñu ngi lay gërëm laaj bi ma la bëgg li ma la bëgg a laaj mooy après euh, Kazu Rajab gi ban bisu doomu Sëñ Tuubaa moo sësaat ci kanam tuuti. waaw suñu Cheikh Modou Moustapha sureetut mi ngi fii mu làqoo ñaar ñetti fan ci weeru. Euh, baraxlu yi hmm. soriwul ndax comme tey la 27 tey mooy bëccëgu 27 te ñetti fan la kon fii ak ñetti fan daanaka weer wi dana feeñ ñu ñu ñu ñu dem ci. feeñu jamono Cheikh Moussa màggal googu nag jigéen yi doon Cheikh hmm. Moussa yu jigéen yi wala leen ci taalibe yi ñoo ëpp lu ñu koy màggal màggalit bëccëg la kon mi ngi fi li nga xam ne nii mooy juróom-ñaari fan ci weeru baraxlu mi ngi fi màggalu xurumbaati nga xam ne sëñ Mbay Jaxate itim moom itim euh, ngan ko sëñ Tuubaa si woon foofu ci xurumbaake ci vers 1919 mi ngi li nga xam ne nii moom mooy euh, màggalu Euh, sëriñ Massamba Mbacke mi ngi fii 27 la maam un mois moo ci dox ndax 27 la ci weer wi ñu jëm muy baraxlu li nga xam ne ni mooy màggalug maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru moom itam mi ngi fii fukki nga xam ne daanaka kon fii ak moom moo ci des nga xam ci la sëñ Touba gisewaat ak maam Thierno ci bi mu ko bàyyee tukki bi nga ne moom màggalug daaru xafoor nga xam ne ni mooy màggalu ko sëriñ maam Saliou Fall mi ngi fi màggalug Sam Fall bi nga xam ne nii ci la ñuy màggal suñu Cheikh Fall bàyyi góor moom itam ci ci ci ci ci ci ci weer wi la màggalu ko soxna Mariama Kunta bint ah, Cheikhul Khadim itam moom itam fukki fan ak ñeent la ci weeru Saxbaan nga xam ne sëñ Fallou moo ko joxoon sëñ Matar si la mi doom di ko wax ne maanaam bis bii ci la sa maam ja feeñoon jamono dee ko màggal moom itam ñu ngi koy màggale ca ca ca Rida di dëkk bi nga xam ne fa la soxna Mariama Kunta génne àdduna nekk itam ci wetu fi nga xam ne ni moom mooy Daaru Rahman yooyu daal bokk na ci ñi nga xam ne mën nañoo wax ne teewloo gun nañ ko ci ay xew-xew mais yeneen nang fi nag yoo xam ne nii ay màggal màggaan yoo xam ne nii léeg-léeg dañ koy romb rek filaale ko mu nekk bis yoo xam ne bis yu am solo la màggal sëñ naa bu dul tey bi yi toppoon naa ne am nañu ay kon daal mel ne moom am nay màggali filaale comme ni ñu koy waxee mais am na màggal yoo xam ne nii nag yoon yi fu ñu jaar taxaw ci bàyyi ci xel lu baax a baax muy lu mel ne Daaru Muxti lu mel ne màggalu Sëriñ Massamba lu màgg lu mel ne màggalug euh, ki nga xam ne moom mooy soxna Mariama Kunta ak Sëriñ Cheikh Moussa waaye ñaari màggal yi nga xam ne daal yoonu mul yëpp moom dañ ci bàyyi xel daaru muxti la ak bi nga xam ne mooy màggalu Sëriñ Massamba te loolu benn bi des na presque dix-sept jours benn bi des na un mois ndax vingt ci ci wala ñu jëm te tey la vingt-sept ba ci màggalug Cheikh moom boo ko tuddee euh, am na gaa yu faral di tiit ndax buñu ci jógee rek dañuy daal di tàbbi ci koor gi Euh, waaw waaw mhm. màggal googu moom daa dajee koor gi ndax 27 la. 27 de 28 29 ñu séntu koor gi bu feeñee nga woor bu feeñul nga noppaluwaat beneen bi. Mhm. moo tax bari na ci màggal googu moom gars moom buñ la koy annoncé dañ naan la ah màggal gi moom waroon xaar ba ci kanam màggal buñ naan ma xaar ba ci kanam daal mooy sëñ Massamba. deux jours avant koor la daal naa naar dar maa ngi koy comme yàgg nañoo woor mën naa ñun danañ ko ñeme. ñun dañ ko yàkkamti lool sax ñi Euh, doy na waar daal ñun moom dañ koy ragal lool te <laughs> kon xam naa ñu ngi lay jox rendez-vous ci bis yooyu ci kanam ci ay waxtaan yu fasantikoo ñeel kilifa yu tedd yi nga xam ko ñoom ñoom euh, ñoo tax nu koy def incha allah ñu bàyyi la nga tàggoo waaw tëj rek mooy bisub doomi Cheikhul Khadim bi tay guddi la woon bisub ki nga xam ne nii moom moo euh, eggale jumaay Touba gis ne démb la woon bisub ki nga xam ne nii moom moo njëkk a nekk imaam ci jumaay Touba démb la woon bisub ki nga xam ne nii moo indi ndox ci Franc démb la woon bisub ki nga xam ne nii moom moo indi aw yoon ci Touba démb la woon bisub ki nga xam ne nii bërëbu fajukaay moo ko njëkk indi ci Touba démb la woon ki nga xam ne nii moom moo tudde marché Ocass ab bisam démb la woon ki nga xam ne nii moom lañ doon wooyee aji ngëneel ji muy Cheikh Mamadou faadal Mbacke démb la woon waajuru Cheikh Mamadou Lamine Baara waajuru suñu Sowa Mbacke Falilou yal nañu ko yàlla fayal Abdourahmane Lo ci jumaay Touba ci buntu ko Cheikh Mamadou Fadal Mbacke fi mbaar mi newoon te ren ñu fi doon amale cérémonie officielle bi pour rajo Walfadjri FM. Abdourahmane ñu ngi koy gërëm di ko sant ci euh, direct bi nga xam ne def na ko ak ñun ca Touba buntu kër Cheikh mu Fadal Mbacké noonu mu ko waxee ci peggu jumaa ji euh, mu nekkoon kon cérémonie officielle Magal Kazu Rajab édition 2019 El Bachir Amar nekkoon ci studio bi ak euh, Alioune Badara Dioum. ñu koy gërëm di ko sant Abdourahmane Lo ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne seq na ko ak ñun mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seen ak teewlu di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci di ñaanal sëriñ Abul Baraka mu yàgg woote màggal gi nu yàgg ko wuy si yàgg ko ànd ak njabootuk sëriñ Fàllu Mbàkke gépp ak taalibe mu yëpp ak jullit yëpp tey ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkkeem sëriñ Bachir mu doolee fee yàgg lool yàgg fi lool te ànd ak wér ba lépp lu mu yéene liggéeyal sëriñ Touba rek mu yeggale ko am ci te ñu ànd ko ak moom mbokk yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yaa bari ndam yaa am jaloore ak i ndam ma tiital mu ne su la ŋaññati yaa di suukar maa maam sa bari jël na ndam la bambani fallu laayi fallum yàlla ala ciyo mbakke bu soy ni jaar ciyo mbakke bu soy ni jaar ciyo mbakke bu soy ni jaar ciyo mbakke bu soy ni jaar ciyo mbakke bu soy ni jaar ciyo mbakke